waaw tey ndaje bi ñu doon daj bi ñu doon amal mooy juróomeelu ndaje bi nga xam ne ministre Sénégal bu enseignement supérieur bi yore njàng mu kawe bi moom moo doon daje ak ministre bu France bi yore njàng mu kawe bi comité de pilotage bi nag ci benn projet la bu nga xam ne ñaari président wu réew yi président Emmanuel Macron ak président Macky Sall ñoo gis ci seen xalaat ne tey Sénégal ak France mën nañu taxawal ben université bu nga xamné université bi day joxé ay diplôme ñu fay jàng ay diplômes yi nga xamné dinañ valable na Sénégal diplôme yoy tamit valable na France nak euh doxal doxalin la bu nga xamné ne mën am amoon na am na nu mu doon amé mais nekkul won ci ben université bu ñuy taxawal def ko projet nga xamné day doon université ci lool lay liggéey ci ñaari at ci ginnaaw la commencé lañu jëlone projet bi commencé comme moi en 2018 février 2018 tey ñaari at ak genn wàll ak touti gis nañ né amna fukki diplôme yu nga xamné ñu ngi koy def ñu ngi jàngalé fi ay xalé lu Sénégal ak Afrique ak aduna bi yépp ñu ngi fi di jàngé ci ay école fukk yoyu commencé nañu ba xalé yi jàng nañu ba def nañ cet examen même bu féké amna Covid bi lolu djégo bu rëy la wane na fi tamit que né gis ngeen ko ci copil bi wane nañ fi ne gouvernement de France jàppale na ci benn fonds d'amorçage formation yooyu pour ñu mën a am gis nañu tamit ne gouvernement wu France ci IRD jël nañu décision ne terrain IRD bi nekk Mbour di ay hectares yu bari jël nañ ko maye ko ñu jaay ko buñ ko jaayee ñoom waa France ñoo koy jaay buñ ko jaayee liñ ciy jëlee ñu jël ko tabaxe ko université mu doon université bu nga xam ne dafa am bërëbam am ay bâtiment am am ay étudiants yu fay jàngee loolu taxawaay la bu nga xam ne ay jéego yu rëy la gouvernement du Sénégal tamit moom jox na leen suuf mais gouvernement du Sénégal jël na décision tamit ànd ceeg ñoom que ne dañuy créer université virtuelle jox ko benn caractère établissement public caractère administratif bu nga xam ne ci njàng mi lay liggéey ak ci recherche bi loolu tamit ay détermination yu mel doole yemuñu.

jangan muka kami amna ci dole